honorable ñu ngi lay euh, nuyu dalal jàmm ci waxtaan wi. Euh, Fatou mag ngi lay fay. ñu am mbégte lool dalal ci matinalu tey bi alors yow euh, yaa ngi bokk ci mission d'information bi nga xam ni assemblée nationale daf ko teg ngir saytu wàllu mbënn mi ak ni nu ko yoree ana seen liggéey bi fu mu toll honorable waa kay Fatou gannaaw bu ma la nuyoo ba pare sant la ci dalal bi ma dalal tey ci Rewmi FM. Euh, damay nuyu ñi nga xam ne ñooy auditrices ak auditeurs yi nga xam ne ñooy déglu euh, Rewmi FM euh, bu loolu weesoo may sant bu baax samay ñooñu député ñi ñu tabbu booluñ ci fukk membre yi nga xam ne ñoo na ci mission information bi bi it particulièrement le groupe Benno Bokk Yaakaar wax nga ko donc mission bi installé nañu donc démarré nañu suñu liggéey ñu ngi liggéey donc yaakaar naa ne bu ñu paree liggéey bi dina am bilan boo xam ne ak rapport boo xam ne muy texte document bu ñu tënk boo xam ne mm-hmm. daañu ko jëbal suñuy collègue député jëbal ko nga xam ne moo njiitum réew bu boobaa yéen tamit euh, journaliste yi di ngeen am information yu war. Mhm. Euh, honorable ci ab lettre bu mu siiwal démb Doudou Wade bokk ci PDS euh, wax na ni président Moustapha Niasse jëlul ay responsabilités am te itam li nga xam ne yoon may na ko ko defu ko mooy convoqué mission session extraordinaire au lieu que muy def lii di mission d'information bi est-ce que PDS li ko jaaxal ci mbirum mbënn mi mission bi dina ko mën faj bokk na ci déglu ñi nga xam ne ñooy ministre yi ñu tegoon xaalis yi ci seen loxo. xam nga euh, euh, euh, session extraordinaire amul amul solo fu mu nekk nii ndax gis ngeen ne léegi assemblée tijji bu weer bi dee rek assemblée dafay tijji yu jëm yu jëm ci ay plénière kon ministre bu ñu bëgg a déglu rek daañu ko déglu mm. li ñu teg tey dafa am solo ndax bu ngeen seetee ñi ko ŋànk ñëpp ay njiital commission la ñu du bureau assemblée ñoo ko ŋànk mais ay ñi ko njiit ñëpp dañoo jiital ay commission ñi ca bokk tamit ci ay commission la ñu bokk te du n'importe quelle commission commission yi nga xam ne ñooy yëngu ci wàllum euh, ndox meeg mooy ñu ay aménagement de territoire commission développement durable commission euh, action sociale commission des lois donc commission yi dong ñoo ŋànk tey li nga xam ne mooy commission euh, d'information bi te la ca gën a neex mooy du rek ñun waa majorité ñoo ci nekk ñun député yi farek nguur gi ñoo ci nekk mais opposition bi ña nga ca trois lañ ca euh, ñi nga xamante tamit euh, non inscrits lañu mooy bokkuñ ci opposition bokkuñ ci ñun euh, ña nga ca kon nag liggéey bi bu antoo di ngeen gis ne vraiment liggéey boo xam ne lañu ko def ñëpp bokkuñ sensibilité ñi ko def ñëpp ku jégi la ak ñu ànd ak nguur gi ñoo lëkkaloo def liggéey bi nga xam ne bis bu sottee danañ koy jébbal ki nga xam ne mooy dama rapport boo xam ne dañ ko tënk ñëpp xam lan nga xam lu nga xam ne moom moo moom moo ci xew. alors euh, mission bi euh, yan jéego la nar njëkk a def honorable euh, ngir ñu am un peu idée ci euh, yan yoon ngeen di jaar. dinañ déglu ministre yi nga xam ne tey jii ñoom ñëpp les ministère concernés dañ également tamit dem ci terrain bi xoolal suñu bopp. Euh, parce que mission bi liggéey bu am solo la liggéey boo xam ne la d'intérêt national la parce que njëriñ pour njëriñu askan wi la euh, loolu moo tax mission bi jóg. alors yow euh, yaa ngi nekk responsable politique ci Kaolack président Macky Sall ci ay bés bi ñu génn mu ñëwoon fa week-end ba la ñu passé tey booy natt visite boobu li ci tukkee lan lay doon. waaw dañuy rafetlu déplacement président Macky Sall ci Sine ak Saloum. mooy ci fi nga xam ne mooy kaw Kaolack ak Kaffrine euh, ñu rafetlu ko bu baax ndax dafa dem euh, nemmeeku euh, baykat yi xool lañu liggéey fa mu toll xool tamit nam leen jàppale woon ndax am na résultat te loolu gis nañ ko fa ndax kat président dafa jël jumtukaay yu am solo jagloon ko euh, béykat yi mu ci wàllum équipement jël tamit li nga xam ne mooy intrant bi daal di ko subventionné defit ay ay financement kon tey bu ñu demee euh, pluviométrie bi nga xam ne tey euh, waxoon nañ ne nii lay mel ñu jëloon ay matukaay campagne agricole bi bu ngeen seetloo dafa tolloon ci quarante milliards daaw ren président yokk ko ba cent milliards kon yooyu mu def yëpp muy ay réalisation euh, président euh, wàcc dem xoolal boppam xool euh, paysans yi fu ñu toll nan la récolte bi tëddee ak la mu defoon lan la juug yaakaar naa loolu lu am solo la mm. donc ñu koy rafetlu paysans yëpp vraiment sàggal nañu ki nga xam ne mooy la président Macky Sall dem nañ ci tool yi. dem nañ ci tool bi nga xamante ni sax toolu président de la république la hmm. ndax toolam boobu dañuy ñaax ñun ñu xam ne euh, li ñuy wooyee dellu ci suuf sa ndax euh, dellu liggéey suuf du rek du rek liggéeyu euh, béykat muy ko jàng ak cadre ba ku ci nekk war na ci mën a mën a mën a liggéey hmm. ak tamit mu woo ñi nga xam ne ñooy investisseur privé bi mu ñoom tamit ñu mën a investir ci ci agriculture culture d' accord léegi visite boobu nag euh, di tournée bi ñu bëri dañu gis ne politique daf cee laxasu est ce que tamit euh, amoon na solo lool lool euh, bu weesoo politique bi xëy na surtout ak mbooloo mi ñu gis mu dajale ci jamonoy mbas mi ñu nekk amul benn geste barrière boo xam ni ne sàmmonte nañu ak moom. xam nga nag mbooloo mi xam nga Fatou ki nga xam ne moo ne woon président Senghor di premier président du Sénégal. loolu mm. wax naan la raison est hellène l' émotion est nègre. Euh, askan bi nag dafa dañ ko gën a wane euh, dañu wane ne sénégalais dafa am li ñuy wooye kóllëre euh, sénégalais dafa mën a teeru nit teral nit tey la xew ca kaw Kaolack xew Fatick xew Kaffrine du loo xam ne président de la république da ko sabablu parce que moom ci boppam dafa waxoon ne bu kenn génn bu kenn mobiliser bu ngeen seetloo benn responsable deful mobilisation bu ngeen xoolee mobilisation bi nga xam ne moo am bu ngeen gisee pancarte yi gis t-shirt yi gis bàndagool yi bu ngeen liiree dafay nekk ay support communicationnel yoo xam ne depuis présidentiel ba la woon kon sénégalais yi ñoo génnul seen bopp teeru ki nga xam ne mooy seen chef de l'état ñoo génnal seen bopp parce que dañu kontaan ci bilan wam dañu génn parce que dañu gis li mu def ci jigéen ñi jigéen ñi génn ndaw ñi génn parce que gis li mu liggéey pour ñoom béykat yi génn parce que dañoo kontaan donc loolu moo waral li ngeen di wooyee mobilisation. Mm. mu nekk une mobilisation spontanée mobilisation boo xam ne kenn waajalu ko waaye nag nit nag bu la defaree lu baax bu la teralee bu dëgg dugg bu dugg sa gox. war ngaa génn sargal ko. d'accord est-ce que tamit ñëwul woon xëy na pour euh, euh, artu wala fagaru ci yenn problème yi mën a tukkee ci local yi ñu dëkkmal ku ne xam na ne Kaolack bëri na ay euh, candidat yu fa nekk wala potentiel candidat nga bokk ci nekk fa responsable ak ñeneen ak ñeneen euh, nu ngeen di séentoo justement yooyu élection. xam nga président tournée bi mu def dafa nekk une tournée agricole. li ko taxoon a jóg du politique. Hmm. dafa am taawu politique ak taawu liggéey te moom dafa nekk ci li ñuy wooyee la temps de l'action te chaque jour mu wan nañu mu ñu wan nañu man li ma tax a jóg mooy liggéeyal askanu Sénégal ba mu ñu fekkee Kaolack ak ba mu fekkee responsable Fatick yi ba mu fekkee responsable Kaffrine yi du benn yoon bu mu toog lal waxi politique parce que waxi politique taxu ko war a jóg waxi baykat yee ko taxoon a jóg xool fu euh, fu mbay bi toll xool ndax taw bu bëri bii am na lu mu yàq lu mu yàqul xool tamit ndax moom jumtukaay ya mu joxe woon béykat yi pour ñu mën a saafaral seen jafe-jafe ndax am na lu mu jur loolu moo ko tax a jóg ba nga xam ne euh, du benn yoon boo xam ne président toog na wax ay mbirum local dañu jàpp ne local dafa am ñoo xam ne dañ leen ko dénk mu ñi nga xam ne ñoo ŋànk dialogue national bi donc ñooñu la ñuy déglu ñu tamit ñu yaakaar ne am consensus bu am solo boo xam xam ne dina ci génn ba nga xam ne euh, dañ la yëkkati levier yu bëri ba jongante bi ci local yi ñu dem si jàmm ak salaam. Hmm. nu ngeen di séentoo local yi foofu ak candidat yi nar a bëri maa ngi la koy junj sànq. waaw xam nga euh, fi mu nekk gisoo kenn ku waxagum ci local yi. Hmm. parce que ñun dañu bokk ci benn coalition. muy la coalition Benno Bokk Yaakaar te boobu ba tey coalition bi toogagul wax ci wàllum local yi yaakaar naa ne bés bu ñu ci yeggee nag waxtaan bi tijjee ko ki nekk di nga xam léegi nag lan mooy sa position. Mm. Ah, ah, d'accord nga ci ñu dàq local yi am euh, ñu bàyyi ko fi mu nekk ni ko opposition bi ak société civile bëggee. xam nga dafa am ñu ñu ko ñu ñu wóolu euh, ñu nànk dialogue bi te foofu yaa euh, ñu ànd ak président ñu nga fa toog ñu ànd ak opposition ña nga fa toog ña nga xam ne ànduñu ak président ànduñu ak opposition ña nga fa toog donc ñooñu ñooy génnee la meilleure formule. Euh, ba nga xam ne tey jii dinañ jëm ci local yooyu noonu euh, te man gëm naa ne euh, mën nañu yëkkati ay levier yu bëri ba nga xam ne local yi du génn deux mille vingt et un hmm. mais loolu yëpp dañ ko tëg-tëg si ñoom ñuy yaakaar ne dina am benn déggo benn consensus bu fort boo xam ne mu ñu jëmale ci élection locale yi. d'accord ñu ñëw ci mbas mi ak ni ñu gisee mu tàmbalee wàññeeku ràññee woon nañ la ci xeex bi nga àndoon ak yeneen soxna député euh, ci euh, plateforme Femme bu ndax jàpp ngeen ne tey euh, liggéey ngeen lu tax xëy na ñu yegg si tey fii ci kaa yu wàññeeku. waaw man jàpp naa ne Femme Debout. Euh, joué na rôle bu am solo ci euh, li nga xam ne moo waañi mbas mi euh, naam état bi dafa teel a jël ay jumtukaayam avant même sax cas di fi déclaré wu waaye dafa am tamit ñoo xam ne dañ ci jàpp tamit lu mel ne suñu plateforme femme plateforme femme debout parce que bu ñu approche communautaire mën naa ne dañoo bokk ci ñu jiitu dem ci terrain bi rencontrer les les leaders d'opinion moo ñu am kàddu yi ci gox goxaan yi. daal di leen defal formation ci sensibilisation ci conscientisation euh, pour ñoom ñu nekk de plus puissants relais donc def nañ ko ci gox-goxaan yépp muy dakaar muy au niveau national fu ñu dem ànd ak les maires wàcc ci leader d'opinion yi waxtaan ak ñoom wax leen les mesures barrières yi waxtaan ak ñoom ci li ñu wax a mën a taxawee ci wàllum stigmatisation boobu noonu mooy ku am kii ñu koy daw ak tamit nu ñuy moytoo euh, nu ñu aaree suñu bopp. aar suñu njaboot aar suñu dëkkandoo aar famille bi ba nga xam ne mbas mi dina fi jóge kon donc jàpp naa ne euh, plateforme Femme Debout liggéey na ci liggéey bu am solo muy ay député yu ko taxawal ànd ci égal jigéen ñu bokk ci société civile bi tey ji croix rouge dañu ànd ak moom liggéey ak seen présidente ba ànd ak tamit yeneen jigéen ñu bokk société civile bi suñu présidente c'est le ancien ministre ci am euh, man may secrétaire exécutif bi ñu gis si ràññi ay député yoo xam ne kenn ku ci nekk vraiment am nga taxawaay bu mat ci femme debout ba nga xam ne euh, tendance bi nga xam ne mooy wàcc euh, am nañ ci pàcc. te it ñu gën a interpeller sénégalais yi tamit ak citoyens yi kenn ku ci nekk fa nga nekk nga gën a euh, fagaru euh, ba relâchement bu mu am ba ñu yegg euh, zéro cas de de Covid. lan moo may Sénégal mu am résultat bi ci de manière générale. xam nga Sénégal dafa teel a taxaw ci Covid bi parce que da ko da ko gàttandu. xam nga dañu nekk ci monde boo xam ne dem ak dikkalante bi lu xew Chine mën na yegg si Sénégal donc dañ ko gàttandu euh, jël ay mesures yu état bi jël ay mesures yu am solo tey boo seetloo tey euh, étudiants yi nekkoon ca Wuhan bañ bëggee ñëw l' dafa jël benn mesure euh, sénégalais am nañu comprendre wutoon mais bu ñu demee ba ci ca pandaw bi muy waajuri xale yooyu dañoo sant njiitum réew mi xale yooyu tamit sant njiitum réew mi ñu gis bi premier cas automatiquement fekk na ne y avait déjà ñu jëloon ay mesures préventives bi kaa bi amee ñu indi li nga xam ne mooy pour du masque bi indi ras loxo yi euh, indi état d'urgence bi dakkal dem ak dikk bi ci région yi donc vraiment état Sénégal bi dina jëge yoo xam ne tey moo ko may bés bii ñu dundu tey ce n'est pas pour rien Sénégal bokk ci dëkk yi nga xam ne tey ñoom la ñu ràññee ci taxawaay bu am solo ci xeexum Covid bi hmm. ndax buñ demee ba jël deuxième position au niveau mondial ça veut dire que ne suñu état yi suñu suñu autorités yi duñu ay cuune suñu autorités yi euh, vraiment taxaw nañ taxawaay bu mat ba nga xam ne euh, euh, Covid bi defu fi ay dégâts. jërëjëf honorable ñu ngi lay gërëm euh, amoon mbégte lool dalal ci matinalu tay bi Adji Mergane Kanouté député bokk itam ci ñi nga xam ne ñoo war a dem saytu wàllu inondation yi ci mission d'information bi nga itam vice-présidente soxna yi bokk ci Benno Bokk Yaakaar ñu ngi lay gërëm. waa kañ maa ngi lay sant bu baax yow tamit Fatou di rafetlu sa professionnalisme ni ngay vraiment animer sa émission